اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها ما أشكل علينا حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب أيها الأخباب الكرام أجدني في هذا الموقف بعد هذا التحديد الوقت كما قال سيدنا القصيري الوقت كالسيف إلا ينته لا نمسه وخده إن خسنته خسنان ولكن نسأل الله بركة في الوقت والتوفيق والصداد والرصاد فيما نقول بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بن سنتي يالله جلت ينتبه صلى الله عليه وسلم نيجي أمات كونتانت ما أجمدتي بباخ توغار تسنو بلاتو بيغا خمانتني نيجي كي أملي في تنجاسان تيفي وايدي نيو أكزيار كيغا خمانتني مموي خليفة العام لطريقة القادرية muy seexul bekkaay ibnu seexul bekkaay ibnu maam cheikh bu Mouhamed Kounta waaye nekk it ci guddi goo xamante ni moom la ñuy tuddee mawludun nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku ne xam na ni weer wi bu jotee wala at mi bu jotee jullit ñi danañ dajaloo màggal judd ki nga xamante ni moom mooy sangu-sangu yi muy sayyiduna ma sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni yàlla moo ko yónni ci ñun mu nekk rahma ci ñun waaye yàlla yónni ko ci ñun mu nek ko xamne dafa ñew ngir motali jikko yi nga xamanteni mom mo manke ci ñun donte ay jikko amon na fi kon ci lolu lañ nyari ñaari kangam yo xamanteni ma sha allah seen xam-xam màcc na kenn ki nek ci sama ndeyjoor ñi kay wax Mouhamed Bekay geey kenen ki nek ci sama chamine ñi kay wax mohammed Fane wax deug yalla ñu nek ñaar ño xamanteni ay jambar lañu waaye jaar fi nga xamanteni mom moom maghrib don fa sàkku li nga xamante ne moom mooy xam kon bu ñu leen dalalee suñu plateau wax dëgg yàlla dañ naan laa xarwa ñi war a sekk ak ñoom nag wax dëgg yàlla waxtaan woo xamante ni day aju ci li nga xamante ni moom mooy guddik Seydina sallallahu alayhi wa sallam waaye it aju tamit ki nga xamante ni moom moo woote guddi gi fii mooy maam Cheikh bu Mouhamed Kunta waaye ak lépp loo xamante ni rek day jàll ci ki nga xamante ni moom mooy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon duñ def rek lu dul jox Mouhamed euh, Bekay euh, Guèye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 سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه والصلاة والسلام على من لا تتناهى مفاخره ومزاياه الذي إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين السنايا ورضي الله عن شيخنا وإمامنا ووسيلتنا الشيخ أبو محمد كنت وجزاه الله عن الدين خير الجزاء ونصر وفتح من الله على خليفتنا شيخ البكاي ابن شيخ البكاي ابن شيخ أبو محمد الخليفة العام لطائفة الخاضرية أيده الله ونصره إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala moom mi maye mu may ñu mu may ñi ñu fekkee ko ci dëkk bu sell bu baax bu tedd bii di dëkk bii di njaasaan di fàttali ko kiñ fàtte muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mii suñu làmp dinañu sant yàlla bu baax ci mayam yooyu ah te koy ñaan mu dolli ñu yàlla nañu yàgg a fekkee ànd ko ak suñu xalifa ànd ko ak kilifa yépp di julli ci yonent bi sallallahu alayhi moom mi nga xam ni bu dul woon moom dara du doon dara ndax yàlla ñu ko préparé yal nañ ko yàlla yokkal ay leeram sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal suñu maam suñu wasila suñu xalifa cheikh bu Mohamed Kunta muassis Ndiassane di ñaan yàlla yokk leeram yàlla taasuñ ci barkeem te yàlla dëgëral ginnaawam barkeel njaboot gi li mu fi bàyyi liggéey bi mu commencé yal na njaboot gi mën koo eggale dëppoo ci ak ngërëmam dëppoo ci ngërëmal yonent bi sallallahu sallam ngërëmal ay maamam ak ay bambaayam ba ci yonent bi sallallahu sallam di ñaanal ki fi yàlla teg ci boppu njaboot gi di seexal Al mu Cheikh Al ki nga xamante ne ni ñaari kàddoom du génn na ngeen jaamu yàlla na ngeen sellal foo leen mën a nekk dama fi ñëw nii ko waaye daanaka ne ndénkaaneem du génn mbaa yaa ngay góorgóorlu na nga maandu na nga sellal ñaanal yàlla yàggal ko fi ak ñi mu àndal ci njaboot gi di njaboot cheikh bu kunta njaboot cheikh al bunaama ak ñi nga xam ne ñoom la seexal diina ci réew mi yëpp yal yàlla yàggal leen fi yàlla dolli leen liggéey bi ñu am bokk muy toolu lislaam jaare ko ci waar wi ñuy tudde tasawu yal na yàlla dimbali leen ci ba ñu kontaan te suñu kontaane yonent bi rek mooy kontaan yal na ko yàlla dimbali di nuyu mbokk yi ñi ñuy seetaan gi ñuy déglu ak fu ñu mën ci nekk ñu ngi leen di nuyu ci nuyo bi nga xam ni moom la ñuy lislaam boole muy nuyoo jàmm di ko ñaan yal na yàlla defal jàmmi lislaam ci àdduna bi yàlla sotti ko ci suñu kaw ci barke kii ñuy màggal di yonent bi sallallahu ci bërëb bi ñu koy màggale suñu fi jógee na yàlla matale jàmm ci ñi lépp lépp lu jaxase woon yal na yàlla dindi ci la cay lënt te indi ci ak leer lépp lu ñuy wut tamit teraanga ci ab jullit yal yàlla defal ñu ko àdduna yàlla defal ñu taw féexit ci yoonu njub di leen nuyu di sant bu baax a baax ci jotaay bi wasalaamaaleykum wa Euh, macha allah Mouhamed ci nuyoo bu am solo boobu nga xamante ni wax dëgg yàlla duggee nga ko ñu ci kontaan bu baax a baax di ñaan yàlla barkeel euh, dañuy bàyyi euh, Mouhamed Fane moom mu dugg daal di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan seen bi nga xamante ni moom mooy Ndiassane TV. aoudu billahi min sheytan rajim bismillahi ودين الحق ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على نبي الأمانة والأمن سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Uh, mbokku jullit yi ñoo ngi leen ay ziar di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm uh, gi ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne moo yónni yónnentam di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jub ak jubal mm-hmm. incha allah donte yéefar yi danoo bañ. Mm-hmm. moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne moom mooy yónnent yi euh, moom mooy yónnent yi jàmm euh, ak ay sahaabam ak ay ñoñam noo ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sunu xalifa euh, Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral cëram te may ko dal ak tal ak fekkee ak euh, mboolem xulafaaw yi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi ak ci biti réew mi yal na leen yàlla jàppandalal seeni euh, yëngatu. Euh, di kontante bu baax nag di am kontante bu baax ci ñëw ci plateau bu mel ni nga xamante ne Ndiassane TV mbokk yi ko seq yëpp suñuy xàmmee lañu suñuy wëllëre lañu nga xamante ne jéego gi ñun ñoo ci waroon a jiitu waaye yàlla def na lañ ciy def ñu ngi koy gis. ñaan yàlla yan na leen yàlla jàppandalal hmm. kartanaal leen ba yàlla boole ko ci tele yi nga xamante dinañ ko seetaan fii ci réew mi ak ci bitim réew loolu yàlla mën na ko yal na ko yàlla def euh, incha allahu rabbi ñu jox micro bi sunu mbokk mi mu dugg ci waxtaan wi. Euh, macha allah Mouhamed Fane yow tamit euh, ci dugg si bu am solo boobu nga xamante ni dugg si nga macha allah comme ni leen ko waxee woon rek mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan. waxtaan bi dañ koy tënk ci ñaar ci Cheikh bu Mouhamed Kunta ak ci ki nga xamante ni moom mooy maamam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh bu Kunta moom moo woote gàmmu Ndiassane fii te kan la ko wooteel ki nga xamante ni moom mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon duñ def rek lu dul euh, jublu ci ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed Becaye Gueye di ko laaj ci ki nga xamante ni moom mooy góor gu tedd googu moom mooy góor gu sell googu mooy góor gu màgg googu noonu kooku nga xamante ni moom moo ci wàllu yàlla yi nga xamante ni يلا خللوا لنا لن يوني نحو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لولو سونو بروم مكو واخ القران الكريم كون شيخ محمد كنت ياكار نني تي غور نيو ني لا بوكون تا لولو مو ام لولو مو ورال لي كون محمد بو ني دون خمال غور غوغو نون دي شيخ محمد كنت انا لان غني خمال تي موم بور نيت ني مانا غنا باي خال تي موم ما شاء الله سيغ بو نام كنت كي غاي لاج موي غور غي ني تودي شيخ بو محمد كنت di wàllu yàlla boo xam ni yàlla moo ko baaxee senegal mu ñëw nekkoon fi ak ay magam nekkoon fi ak ay waajuram waaye taxawaayam ak liggéey bi nga xam ne def na ko yàlla jox koy barke waajuram jox ko barke ay maamam ba mu taxawal fii di Njaasaan Cheikh bu Mohamed nag suñ koy wax dañuy wax ni comme dañ koy delloo ci Yaxya bun Muas li mu waxoon di wax ni alwaliyu rayxaanullahi fi ardihi yasummuhu siddiquuna فتصل رائحتهم في قلوبهم فيستاقون به إلى مولاهم فتزداد عبادتهم على حسب أخلاقهم سيحو محمد موي ولي يالا بيغا خامتيني كوم نيكو يحيى بن معاص وحيني ولي فوم موي دون بارفو سيني بوروم سي كاو سور بارفو سيني بوروم بوبو يالا دينا باخي نيت كو نام ما باخ بوم خيغ لا سولا خيغ نغا bëgg xenc bi nga koy xenc na dafay def si yow ak bëgg hmm. bëgg ban la lay bëggloo mooy daf lay bëggloo sa borom hmm. bëggloo bi mu lay bëggloo sa borom mooy tax nga gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla ba tax nga mën a am li nga xam ni mooy ngërëmam hmm. Cheikh Bou Mouhamed nag yàlla indi ko fii si Njaasaan mu nekkoon dëkk bu wéet di dëkk boo xamante ni bu tumuranke la di dëkk waaye ak fi mu jaar yëpp ba egsi loolu duñ ci jaar waaye bi mu ñëwee ci Njaasaan teg tànkam fi nga xam ni foofu la ko mag ñi tegoon ci jàng ci liggéey ci jaamu yàlla ci rafetal ay dëkkandoo ci jëflante bu mu mënti doon yàlla def xetam xetu bu neex boobu di xetu parfum boobu dem ba ci bitim réew tànnal ko ay nit ñu yàlla nar a baaxal indil ko ko fii ci njaasaan mu nekk fi ak ñoom di leen tarbiyu di leen jàngal di leen yar boobu ku mu def ci yow la mu war a def ci yow yóbbu la ci beneen bërëb su gisee ni beneen bërëb moo gën ci yóbbu la foofa nga nekk fa yow nekk fee liggéey boobu liggéey boobu nga xamante ne soo demee du tax mu bàyyi la ko waaye daf lay def tarbiya bil himma wal xaal seex mm-hmm. bu Muhammad nga di ko gis ak nga di ko ñàkk gis saa yoo yëgee seex bu Muhammad rek mu am lu mu dindi ci yow mu am lu mu def si yow mm-hmm. kon kooku mooy seex bu Muhammad Kunta mm-hmm. ki nga xamante ne nii moom moo sos fii di Njaasaan woote fi tey bis bu màgg bii nga xamante ne ni mooy màggal judd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ngéntee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dina koy faral di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax saa yu ñu wootee julli bu ñu tuddee suñu borom subhaanahu wa taala teg ko ci kon mënuñu ko fàtte saa yu ñu bëggee ñaan suñu turandoom yaa ci fu ñu mënti dem kon yonent bi duñ ko fàtte waaye di koy tanal bis loolu tamit dafay nekk lo xamante ni dina tax xale yi ñu gën a xam ki nga xamante ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam boobu dafay am lu muy meññ ci xale yi mooy dafay meññ ci ñu bëgg ko ndax nit ki lu mu xamul du ko nam nit ki lu mu xamul du ko bëgg imaam Xasaali ni mu ko waxoon ni al alim al maarifa yu hayyu ul iraada nit ki saa yoo xamee rek xam-xam boobu mooy tax nga namm koo gisul mooy tax nga bëgg koo gis mooy mooy tax nga di ko roy kon ñoom loolu moo nekkoon yitteem ba tax mu woote fii si Njaasaan moom Cheikh Bou Mouhamed Kunta ngir màggal li nga xamante ni mooy ngente yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënoon naa jël bi si juddu ba waaye dafa am ñu fi bokkaloon ci réew mi ñu nekk fi te nekkin ba rafet kenn ku ci nekk it ñu xam ne bu ñoo bokk tool suñu woo kii woote tey bu subaa kee woote njaboot gi yëpp dañu xam ne woote yëpp dafa am ci kenn ku muy dellu mooy yonent bi sallallahu alayhi te lu woote yi gën a yaatu te jëm ci moom day tax njariñ yi gën a bari mu jël ni moom ñëpp bisa maamam la ñuy def la ñuy defal kon moom su ñëpp dafee bisu judd ba mu jël bis bi nga xam ne nag moom rek moo ko sañ a def muy ngénte bi ndax koo bokkul doo ko ngénte mu jël bisu ngénte bi woo ñu fii ci Njaasaan ngir ñu màggal ragal bi nga xamanteni ni mooy juddu sallallahu alayhi wasallam kon gor ko moy gor gu bax go nga xamanteni ni gis ko rek texe la deg ko ta xam ko texe la roy ko texe la moy ki nga xamanteni ni mooy cheikh bu Mohamed di maam ki nga xamanteni ni mooy cheikh albekay Bekkaay nu cheikh albekay Bekkaay kon yal nañ ko yàlla fayal taas ci barkem ci gor gu bax go jerejeuf mohammed Bekkaay jerejeuf jerejeuf kontaan nañu kon mbokk yi cheikh bu Mohamed mi ngi nonu ak li nga xamanteni mom la ci oustaz bu bax bi wax ci mom te lépp loo xamante ni wax na ko ci moom rek yaakaar naa ne nekk ci góor gi yaakaar naa góor gi mooy ku sakkan ki moom tamit moom Cheikh bu Mouhamed Kunta ndax yàlla moom moo ko defal loolu yàlla moo ko may loo xamante ni may ko kenn ba tax mu xàllal ko dëkk wi nga xamante ni moom mooy Njaasaan te Njaasaan nag nekk na dëkk boo xamante ni ku ko dégg rek wax dëgg yàlla sa xol day féex doo dégg Njaasaan mukk di ci amee xol bu naqari doo dëkk Njaasaan mukk doo dégg Njaasaan mukk di ci amee loo xamante ni daf la fay soof liñ ciy dégg ngir barkee góor googu mooy li nga xamante ni mbégte rek moom moo fi feeñ góor gi nag sëñ bi li nga wax ci moom rek moo nekk ci moom sancee dëkk bi ngor ak fulla ak jom waaye nag sancee ko li nga xamante ni moom mooy diine te diine rek moom moo leen ñor kon bu demee ba taxaw di wooteel maamam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir lan ngir ngénte wax nga ko léegi doom ku ko jur moom moo ko sañ ngénte boo jurul doom sañoo ko ngénte lu dul dañ la caa jox ndigal te ñoom dañoo bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa yoon soo demee ci côté Cheikh Abdou Xaadir Jelaani mun bint bintu Baslul moom mi nga xamante ni moom mooy yaayu ki nga xamante ni moom mooy Cheikh bu naama Kunta càllaleem day dem ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nañu sërif umman wa abban ci côté Cheikh bu Mouhamed Kunta way bu góor muy maam Cheikh ba tey moom it càllaleem dem ki nga xamante ni moom mooy Oqba fatihul ifriq ñëpp xam nañ ko ñi jàng taarix xam nañ Oqba bin Naafi moom mi nga xam ne moom moo ubbi fi nga xam ne moom mooy Xayrawaan dugal diine fii ci lislaam kon càllare googu boo ko toppee Uqba bokk ak sayyiduna sallallahu alayhi wa sallam te ku la gën a jege sa maam mooy sa baay lay doon loolu moo waral kunte yi nekk way jur ci ki nga xam ne moom mooy sayyiduna Muhammad ci côté boobu noonu loolu tax ñuy am droit ngénte ko comme ni nga ko waxee woon dafa bokk ay nawleem ci dëkk bi ba tax ñoom it am ñi ñëwoon ñoom ku ci mel ni maam Alhaaji Malick ñëwoon waxtaan ak moom ci gàmm gi loolu moo waral mu demee noonu moom mu jël judd bi mom mu jël li nga xamanteni mom moy euh, ngenté gi ma sha allah ci li nga xamanteni wax deug yalla nga ko sha allah xana di ñew ci ki nga xamanteni mom moy mooy euh, Mahamed euh, Fane mom tamit ci question bi nga xamanteni amal nañ ko ak mom du jënn yonent bi tamit ba batay mom tamit mom Mohamed di ko laaj tamit mom Mohamed ci jamono ji gis nañ ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ñi koy ŋàññi bari nañ te ñi nga xamanteni ñokay mooy ñi nga xamante ni dañoo réere lislaam ba tax ñiy jël ay caricature di jéem a melal ki nga xamante ni moom mooy Seydina Mohamed te mënuñoo am meloom dañuy sonn rek li tax nag ñu duggee foofu noonu ndax ci actualité la mënul ñàkk yit comme ñi ngi ci guddiyam ñi ngi ci bisam mënul ñàkk ñu wax ci moom tamit doya bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ba tax nit ki mënul jëf safaan ci moom ba safaan boobu ant mënul nekk kon ñooñu dañuy sonn rek ane lan nga ñuy baaxee ci loolu loolu nga ci ñaaxaate ci ci ci ci domaine boobu. waaw macha allah oustaz comme ni nga ko waxee ak ni ñu ko xamee eh, loolu nekk na mbir moo xamante ne lëmbee na àdduna ay nit ñuy taxaw di melal yonent bi ci melokaan goo xamante ne àndut ak nite àndut ak mbaax àndut ak yiwu yonent bi sallallahu alayhi wa ba fan yu mujj yi ñu gis am ku ko defoon ci at yu weesu am mbokk yoo xamante ne am nañ fu ñu jaaroon ak moom ba faat bakkanam euh, donte lislaam moom mësuta encouragé faat bakkan bu dul daruri la mm-hmm. maanaam aquk lislaam mooy yéeg ci kawam ñu faat ko mm-hmm. te moom la mu def mm-hmm. donte ña ko def ci defin ngañ ko defee ñun duñ naan dañ kaa gërëm waaye buñ ko jaaroon ci jaarale woon ci charia atamen charia da koy faat ndax dafa faat lu boppam euh, jamono ji na gis nañ benn kilifa ci niñ ko mën a tuddee waaye du kilifa ndax nit bu nekkee kilifa du tooñ ab yéefar sax du tooñ ab juif sax boo xamante ne maîtriser na yoonam du tooñ kon tooñ gi mu tooñ noonu dañuy jàpp ne ñakk xam ak ñàkk euh, euh, xam lan mooy lislaam ñàkk xam lan mooy yonent bi sallallahu alayhi moo ko koy yóbbee yonent bi na sallallahu alayhi wa sallam nit mën na kaa jéem a ñaawal waaye nit mënu koo ñaawal li ñuy wax rek na ne yuutub till mënta gàkkal géej youtube till mhm. mënta gàkkal gàkkal géej mhm. kon yonent bi sallallahu alayhi mhm. yàlla moo ko yónni mais laata mu koy yónni def na ñeen fukki at yoo xamante li ñu tuddee zéro fekk wax yooyu wàcciwul ci moom waaye arab yi yëpp moom la ñu wóolu woon ndax mbaaxam ndax jubam ndax jubaleem kon keneen bu jógee tey bëgg a gàkkal yonent googu sallallahu alayhi wa du ko man xanaa kay moom moo cay gën Euh, gàkku moom moo cay gën a ñaaw waaye loolu yokkute lay doon ci lislaam ndax saa yiñ ko defee nit dina mer ba dugg ci lislaam loolu yàgg nañ ko gis ci histoire lislaam gis ngeen Hamza la ko dugal ci lislaam euh, mer goo xamante ne meroon na ko ndax tooñ bi ñuy tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax euh, mbugal bi ñu ko doon mbugal ba tey jii góor yooyu ñu ngi ci kaw suuf am na ñoo xamante ne la ñuy teg yonent bi ak li ñuy teg jullit yi moo li lay yóbbee ba ñu dugg ci euh, lislaam euh, jullit ñi nag am nañ ci taxawaay taxawaay gi ñu ci am mooy yonent bi sallallahu alayhi la mu jàngalee bu ngeen gisee lu bon yonent bi indi nañu ay méthode na ngeen ko dindi ak seeni loxo mooy buur yi mooy borom kattan yi mooy ñi nga xam ne am nañ man-man ak sañ-sañ bu fekkente ne loolu amul mënul ne loolu na ko dénoncé comme ñun niñ koy defee nii wax adduna bi yëpp dañuy dégg ne mbir mi. Hmm. Euh, ñun bugguñu ko ñu ngi koy naqarlu. Hmm. bu fekkee ne loolu mënuñu ko nag. Hmm. Ah, ñu métti lu ko ci suñu xol. Euh, te xam ne li waaj a def ñaaw na. te lislaam du ko mos a gërëm. Euh, macha allah ci dugg si bu am boobu nga dugg si wax dëgg yàlla. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سوري سونو بروم مومو واخ لولو كيغا خامت مو سيدنا صلى الله عليه وسلم كون كو تاخاو ديكا غاني ديكا تصوير كوكو دافا خامول ولا دافا ريري أه، مومو واخ ني انما بعثت رحمة رحمة ولم أبعث لعانا خام لول مومو كو سيدنا صلى الله عليه وسلم كون يرمند غوغ غا خامت نيو نا سي نيون واي نيكول كو خامت دافا نيو سي نيون غير ني كاي غاني كون كيغا غاني kon dañuy deugal li nga wax rek gën la jaajeufal ci li nga xamanteni ni wax deug yalla wax nga ko ci sangu sangi waye di euh, delo ki nga xamanteni ni moy mohammed mom tamit ci ñaareelu question bi nga xam amal nañ ko ak mom mu aju ci li nga xamanteni ni moy walu euh, wàllu gi ci njaasan li ka waral sànq jumul ma ngi ci doon ciof sax mais li ka waral ak lan nga ñi ci wax lan nga ñi ci denk tamit. allah suñuy dellu si ci gàmmu ci njaasaan gàmmu comme ni ko ñëpp xame ci baat bi mooy màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi nag duy rekk ñu daje ci uh, tànt wax ni bisu altine la juddu woon bisu fukk ñaar la tombeeloon karaamaag wala muxjisaat amoon na ca loolu rekk du doy mm. waaye ni ñuy jànge gàmmoo di ko def fii ci njaasaan mag ñi daan ko def mm. ah ñu di ko jële ci ñoom ba léegi mooy gàmm mooy jàng discours bi nga xam moom ci yonent bàyyi loon muy alquran mm. bu ñu xëyee buy ngoonee jamono bu ci nekk mm. képp ku fi ñëw njaasaan nga góor góorlu ba jàng alxuraan wala nga jàngalu alquran wala nga fekkee fu ñuy jàngee alxuraan muy benn beneen bi ci des mooy ñu tudd sikru samail rasul sallallahu alayhi wa ñu tudd wax jàngale kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jaar-jaaram ci ay jikkoom ak ci ak dundam nu mu nekkee woon ci jamono bu ci nekk ñu jàngal ko ndax ki jàngul woon ci jamono bii ñu nekk nga xam ñëpp jànguñu xamuñu kan mooy yonent bi léeg-léeg dina baax ñu wax leen kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. ngir ñoom ñu mën cee jële xam kan mooy moom man ko gën a bëgg waaye dina baax tamit ci gàmmu ci yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. ñuy def li nga xamante ni mooy ziyaarante mm-hmm. tey ku ne mënoon naa toog fu mu nekk mu jàng alxuraan mm-hmm. waxtaan ak waa këram waaye dafa am loo xam ni duñu ko am lu dul dañoo ñëw rek dajet ci daje yu mel nii ñu saafonte ziyaarante ndokkalante ci bis boobu ci nga xamante ni mooy bisu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag dafay ànd ba léegit ñu def ay sara ay leele lu baax lu ñu mën ci bis bi ñu def ko suñ ko defee nag dafay delluwaat ci njàngale Cheikh Sidi Ahmad al Bekkaay Kunta dafa bokkoon ci ay wasaayam wasaayaa yi mu doon dénkaane njaboot gi di ko jon ko julli ci yëpp mu waxoon ni kuunu li kitaabillahi taaliina maa leen di dénk na ngeen nekk ci téere yàlla bi di alquran na ngeen koy jàng waaye jàng alquran du yam rek ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin waaye dafay ànd ak tadabbur ñu jàng ndax alquran wax yàlla la boo xam ne dañu ko jox jàng ko ni rek tudd baat yi ba am na solo ndax sarax la di nga ci am tuyaaba waaye jàng ko ba xam lan la alxuraan ëmb. loolu dafay am solo ñuy dem ci borom xam-xam yi donte la donte faalaxe cay dolli. dina la dimbali gàmm gu ci ne nga fexee benn saar wala benn aaya. soo yàggee gàmm nga bëri loo xam ci téere yàlla subhaanahu wa taala. Seex Sidi Ahmed Bekkaay jàngale ko nag ni kuunu li kitaabillaahi hmm. taalina. Hmm. di leen jàng alxuraan téere yàlla bi waaye dee leen ko gëstu di laaj xam li nga xamante ni moom la téere bi ëmb bay na dafa tey mu ni wali salaami faashiliina hmm. dee leen jokkante li nga xamante ni mooy ay nuyoo mu jokkalante nuyoo nag moo jokkalante jàmm ndax salaam amaana la hmm. moo tax yonent bi doon ñu jàngal ni nit ki su leen commencé waxtu nuyuwu leen bu leen ko fay hmm. mais su leen nuyoo nag amoon na la man maa ngi lay ñaanal jàmm da koy daal di ñëwee moo tax bu waxee leneen nga mën ko fekk si ci loolu te waxoon na moom sallallahu alayhi sallam ni doo leen gëm mukk lu dul ni du ngeen du ngeen dugg àjjana lu la ngeen gëm mm-hmm. doo leen gëm mukk lu da ngeen a bëggante ndax duma leen wax loo xam soo leen ko defee di ngeen bëggante mm-hmm. af soo salaam bay na ko xaabatul mm-hmm. kon Cheikh Sidi Ahmadou Bekkaay ni maa ngi leen di dénk dee leen weccoo baat salaam boobu mooy dee leen nuyoo dee leen amale jàmm ci ubbit ni ko yonent na taxawe sax bu leen xeeb lu baax donte da ngay daje sa mbokk nga ubbil ko sa kanam wa bil maarufi na mu ni maa ngi leen di dénk tamit li nga xamante ni mooy lu baax na ngeen ci sax ndax boo demee ci benn saar alxuraan dañ naan bu ci yàlla yemoon rek dafay doy sëkk wal asri inna al na la fi xusrin te ku ñëpp وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كون أمر بالمعروف دا فاي نيك لو خامتاني ني دا فاي واجب جوليت بو نيك ني دينكانتي دي ديغلانتي لب لو خامتاني ني لو باخ لا شيخ سيدي احمد بكاني ماغي لين كاي فاتلي سما مامو لين كو جانغالون و بكون وبالمعروف امرينا wa anil munkari na su ngeen teree lu bon lu su ngeen digle lu baax na ngeen ca boole nag di tere sofaan bu leen bàyyi di noppi di tere sofaan ndax yonent bi mi ngi ko doon jàngale ni la ta ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawna anil munkar mm. na ngeen di digle lu baax di ko def su ngeen di tere lu bon te di ko moytu wa illa su ngeen moytu rek yàlla wàcc ci yéen musiba ngeen ñaan yàlla te du leen nangul kon Cheikh Sidi Ahmed Bekkaay ni maa ngi leen di fàttali sama njàngalay maam mooy dee leen digle lu baax dee leen tere lu bon soo ñëwee ci Njaasaan foo tourné rek incha allah kilifa goo toogal koo dajal ci Njaasaan dina la wax lu baax ak naka ngeen war a nekkee ca dëkk ba balaa ngeen di ñëw fii ndax ñu ñëw Njaasaan rek hmm. bisu mu delluwaat nekk ca la ñu nekkoon loolu hmm. amul faayda waaye li ñu bëgg mooy bu ñu ñëwee Njaasaan hmm. ñu jëlee fi loo xam ne bu ñëwee day yoon yombal suñu suñu xaale icima ya suñu dund foofu mu ni wali man xataakum waa si loolu loolu yan si moom ko jàngal képp koo xam ne dafa la dog na nga koy jox kon ku ñëw Njaasaan boo fi jógee koo noonu loon koo dog la woon koo dogante seen diggante hmm. boo demee na nga fexe ba jokk ko defarante sa diggante ak moom mu ne jàngalaat ñu ni wali man xajarakum ku leen dog ku leen hmm. bàyyi hmm. ginnaawu leen murtadi ina na ko dem seeti ko pour xëccaat ko mu ñëwaat ci yéen wala man sha'alakum mujibi na ku leen ñaan ku leen laaj na ngeen ko tontu. ndénkaane Cheikh Sidi Ahmed Bekkaay la kon noonu la ñuy fii si Ndiassane bu ñu xëyee suba ba ngoon loolu lañ fiy nekkee mhm. loolu fi kilifa yi nekkee nag dañu bëgg mhm. kenn ku ci nekk boo ñibbee fa nga dëkk mhm. nga jël si njàngale yooyu xam ni ci lii la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon nga dundal ko sa dëkk boobu su ko defee dañuy noppal kilifa gi ndax toog di ran kilifa gi bu ëllëgee kilifa gi danañ dugal àjjana kilifa gi bu intervention yi yàggee bu yàggee mën nañ tankam mom mhm. mu tek tànkam fi yonentou sallallahu salaa wasallam tek tankam mhm. bo legge ñun ñep dañuy bok ci ñi ramu ñeneen mhm. waye duñu nekk jafé jafé bay xaar ko ñi ramu kon ñu magal jiddu yonentou bi moy fatali naka lañu wara nekk suñu delo kan suñu dekk naka lañu wara dundé dunde naka lañu wara jappanté naka lañu wara dimbalanté kan moy suñu roy waye moy yonentou sallallahu salaa wasallam inna lakum fi rasulillah uswatun hasana kon loolu mooy gàmmu fii wa rahmatullah ah jere kon mbokki gamu gangogu ak mohammed ki nga xamanteni mom moy mohammed bégaay ci leral yi nga yi am solo yi nga xam leral nako ci gamu kon lolu yaakar na ni ba legi gennul ben yon li nga xamante mo moy sunna nak maulid maulud fek ñing ko tek ci sunna rek mam borom tuba don na wax ni lolu mom moo ñu wommetee jëmale fi nga xam moy aljana te yaakar na ni julit bu nek li nga bëgg moom moy aljana te bu de ñi ngi maulud tek ko ci ni nga xamanteni ni la sëriñ bi wax legi wax deug yalla yaakar na ni nit desu ko mëna taxaw di ko jam fenn kon macha allah yàlla nañu yàlla may dégg ak topp. waaye di euh, ñëwaat rek euh, ci ki nga xamante ni moom mooy euh, Mohamed Fane moom it ci li nga xamante ni sekkoon nañ ko ak moom léegi rek ci caricature yi ba tey ban taxawaay la ci jullit ñu am pour l'instant nii rawatina waa Njaasaan ñi nga xamante ni xasatan ñoom Yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seen maam ban taxawaay lañ am ci li nga xamante ni. Euh, moo xew ci ci ci ci ci euh, ci ci ci li euh, waa jooju def ñuy wax Macron mm-hmm. lan moo xew ban taxawaay la ci waa ak jullit ñi. Mm-hmm. waaw oustaz comme ni ko ñëpp defee. Mm-hmm. mooy ñaawlu ko. wane ne lii waa ji def. ki benn jullit rafetluwu ko te duñu ko mos a rafetlu. loolu nag ànd ak loolu yëpp dañ ko war a def ànd ak masuliya mooy responsabilité. ak itamit bañ a jéggi dayoo mooy nit bu defee lu defuwul bu dee wax la dañ koy wax bu dee def la dañ koy def waaye bul dóor setu jàmbur ci li maamam def ndax yàlla buur bi subhaanahu loolu jàngal nañu ko euh, nee na bàkkaaru kenn yàlla du ko jàppee kenn kon benn français bu taxawee wax lii moom moo ko wax moom la concerné am na nuñ ko mën a xeexee nag mm. ba nga xamante ne moom ëllëg dootu ko def mm. keneen it dootu ko def mm. waaye tamit ñun en tant que jullit nañu moytu parfois lii xew mm-hmm. kenn mooy wax rek ñu rëy ci ay junniy nit loolu l'islam mësut koo encouragé mm-hmm. l'islam mësut koo digle mm-hmm. waaye nag euh, ndax jéggi dayoo dafa baaxul ci dara waaye nag am na lu ñu man suñu koom lu mu tuuti tuuti ñun ñoo ko moom jëflante gi ñuy jëflanteek moom parce que mbeewte moo tax mu def ko loolu mën nañ cee téye suñu bopp caw waaye nag buñ ci lépp bakkan goo xamante ne yoonam newu ci euh, taxawaayu waa Njaasaan nag mooy taxawaayu jullit ñi ñëpp waaye nag ñoom dañ cee nekk royukaay ndax bu fekkente te ñu seetlu am na néew na nga dégg seeni kàddu ci ay mbir te teewut ñu ngi jëf ñu ngi def li leen war waaye ci lan roy bi ñuy roy seen maam ci yar boo xamante ne yàlla yar na ko ko bu moom yonent bi sallallahu daan na ko bàkkoo ne adamani rabbi wa ahsana taadibi yàlla moo ma yar ba rafetal sama yar kon waa Njaasaan yi taxawaay googu leen ci am bañee nañ ko comme julli ñi ko bañee xeexee nañ ko comme julli ñi niñ ko xeexee waaye ànd ak respect ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak bañ tooñ mbindeefu macha allah ba tey euh, Mouhamed Fani. ci euh, lu am solo lool nga xamante ni leeral na ko taxawaayu waa Ndiassane mooy taxawaayu jullit ñëpp macha allah te it noonu lañ ko taxawee métti nañ ko foofu métti lu yem ci ni ko jullit ñëpp nga xamante ni métti loo nañ ko macha allah xanaa di euh, joxaat Fane Mouhamed Gueye rek moom it mu jéem a ñëwaat ak ñun tuuti rek ci mawlud bi xam naa tamit mu tàggoo waale foofu ndax xam naa ni waxtu bi dab nañu. Euh, yaakaar naa ni mu xool loo xamante ni moom la ciy sofaat rek ci loo xam ne day dana jariñ dana jariñ hmm. macha allah sëñ Bounama ñu am kontaante bu baax ci jotaay bi di ko wax comme ni ñu waxee woon rek euh, gàmmu moom muy noonu ñun ñëpp ay jullit lañu te li yitte mag ñi mooy fexe ba ñu nekk ñoo xam ni dañuy bokk ci Sëñ Abdou Khadre Jeylaani doon wax ni tasawuf moy ikhraju dunya min al khalbi la min asabi al kaffi ñu fexe ba li di aduna bañ ñoo fëkk ñu fexe ba li di aduna àdduna bañ ñoo sànk ñu fexe ba li suñu bakkan bañ ñoo persuloom ñu bañ a nekk tamit topp am riir mm-hmm. ndax nit ki lépp lu muy def lu ne mm-hmm. war na xam lan moo cay raaya ba mm-hmm. ndax mbir bu ci nekk am na raaya raaya bu ci nekk am na wasila wasila bu ca nekk nag am na fu ñuy jaare ba egg ci ñun ñëpp ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa foo ko tudde nit ñi daanu foo ko tudde nit ñi joxe seeni alal waaye ñu xam ni loolu rekk du doy liñ ci soxla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy royooy bi mu nekk ci ñun yonent bi dafa gën ñëpp ndax dafa ëpp ñëpp miisa ku la ëpp mise nag moo la gën mm-hmm. moo ñu gën a baax mm-hmm. yonent bi moo ñu gën a tabe mm-hmm. moo ñu gën a lewet moo ñu gën a wàcce boppam moo ñu gën a moo ñu gën a moo ñu gën a yooyu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa moo fi gën ñii nga xamante ne ñoo ëmb lislaam bi ci Sénégal ndax kenn ku ci nekk am na cër bu la yàlla dénk cër boobu leen yàlla dénk ba tax ñuy wooteel yonent dañu bëgg ñun ñëpp ñu nekk ay mm. royuwaay ci yonentu sallallahu alayhi wa mm. bu ñu gisul yonent bi ñu xool ñoom ñi ñu jigee mm. ñu nekk suñuy ay royuwaay su ko defee kon képp koo xamante ni yaa ngi ñëw ci bis yu mel nii soo ñëwee boo fi jógee na nga am loo doon def nga bàyyi ko na nga am loo dul woon def nga def ko mooy na nga gis lu baax loo fi dégg loo xam dina tax bu ëllëgee boo demee nga roy ca waaye dina am loo xam ne daa nga ko def te nekkul nekkoon na ci yow te gënul boo demee nga bàyyi nañu fexe dëkkan dëkkandoo bi rafet ci jëflante yi nañu fexe am yërmande mm. ci mbindeef yi mm. nañu fexe dëggu ci suñuy kàddu mm. nañu fexe maandu ci suñuy jëflante nañu fexe nañu fexe yooyu mooy natiija asaar yi nga xam ne yaakaar nañ ko góobee ci gàmm yi ngir bu ñu demee bu ëllëgee bu déwénee bu ñu yàlla mayee fekke suñu ñëwee lu tuuti li ñuy manqué ñu am leneen luñ ci dolliwaat ngir man koo complété ba nekk ñi nga xam ni ay murid saadix la ñuy doon mm. dañuy dëggu ci li ñu nekk mm. mag ñi am kontaan ci ñun mm. yonent bi am kontaan ci ñun yàlla am kontaan ci ñun ñu am saadatu daaree ni yàlla mi maye nag yàlla nañ ko yàlla defal di sant waa Ndiassane TV bu baax a baax di santi di gërëm ah, seen ci Yaxya mu Mouhamed Bekkaay di jaarale ci moom nuyoo yeeg ziyaare yi mu nuyul ñu njabootu sëñ Mouhamed Bekkaay gi yëpp di nuyu kilifa yi ci Ndiassane yëpp ñu leen di ndax yàlla ñu booleeg ñëpp kenn ku ci nekk ñu am cofeel ci yow bu baax a baax ndax yàllaa ñu nattoo kunta ñun dañoo xamul lu dul kunta mm-hmm. dañoo xamul lu dul demuñu fu dul ci kunta mm-hmm. yàlla dimbale ñu nag ba suñu waajur loolu la ñu yare woon mm-hmm. dañu daan wax ni képp ku baax su ngeen ko gisee na ngeen ko jox cër ba ko yàlla jox ndax yàllaay séddale ay cër am nit nag du jéem lu baax pare di ko yàq Cheikh bu Mohamed jëflanteem wane nañ kon fi mu nekk ak ni mu mel mooy fi mu nekk si Njaasaan ku mu seqal réew mi na doomam wala mu am lenn lu mu jëflante yoo xam kenn dootu ko fàtte. Mhm. kon kuy taaliba Njaasaan loolu tamit na nga ko bàyyi xel foo mënti nekk. Mhm. nga nekk fa misbaax làmp boo xam ni. Mhm. ñëpp dañuy roy ci yow. waaye kenn warul di la ciim wala di la seexlu wala di la jépp ndax sa jëflante fa nga nekk soo ko defee daal di nga ci wéet lopp lool ndax Cheikh Bou Kounta santaanewu lool ki fi nekk Cheikh Albekaay santaanewu lool mm. njaboot gi ñu fi nekkal di jaxasoo ñoomi sant ñu mm. ñu lool kon ñi ngeen leen def ñaanal di leen ñaanal yàlla dolli taxawaay bi yàlla barkeel liggéey bi bu baax a baax di jégalu bu baax ci waxtaan bi mm. ndax waxtaan ak say kilifa dafa yombul lu ci rëcc di njuum tara ñi ngi koy jégalu mm-hmm. di ñaan yàlla miy jubal yàlla na yàlla defal ñu barke lu ciy njariñ ñu jariñoo ko lu ciy sofaan ñu xam ne doomu aadama moomatul ñu xam gàtt na mm. te xam-xamam demeewul noonu mm. mu juum ca kon du danaka du am solo waaye yàlla mi mottal yal yàlla mottal yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah jaajëf Ndiassane TV ah, jërëjëf Mohamed jërëjëf Mohamed euh, ci euh, kàddu yi am solo yi nga xamante ni euh, dëgtal ngeen ko yàlla nañu yàlla may dégg ak topp te lépp lu fi rek yàlla na barkeel tamit comme ni nga ko waxee di jox rek moom tamit Mohamed Fane moom tamit dëgg yàlla mu indil ñu lenn ci loo xamante ne danañ ko dolli ñaaxaat ñu ak naka lañu wara mëna mën defaat ba gëna mëna fonk ki nga xam moy sayyiduna Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba képp ko xam jugna ngir toroxal ko te munu ko wala jugna na pour ŋàññi ko ñu fexé taxaw fang loolu ba baña exi yaakar na ni ku jug di jëm ci mom da ngay sonu rek waaye do mësa egg ci mom nak am na ku ko fayul ki ko fayul nak moy subhanahu wa taala mais ñun julit ñi ko bëgg danañ taxaw défendre loolu nak mooy suñu waref te buñ ko deful tamit mbugal gi ci ñun lay ñew kon d'abord bala lola nañ taxaw défendre ko mm-hmm. donte yàlla mi ngi koy défendre kon loolu ñuy baaxeewaat ci euh, mm-hmm. góor googu ci ci sangu sangu yi sayyidina sallallahu alayhi wasallam waaw sëñ bi xanaa ñu jéem a tëj rek mm-hmm. euh, li ñuy njëkk a wax rek mooy ñi nga xam ne dañuy jóg di jéem a caricature yonent bi sallallahu jéem a ñaawal ñu ñaan yàlla yal na leen yàlla gindi euh, teg leen ci siraatal mustaqim ndax jubug nit yàlla lay soob waxoon na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha du Muhammad yow yaay ginde ku la neex ndax yonent bi bu doon moom mooy jubal kon kenn du dem safara waaye nag ci coobare yàlla ak sabab lu doomu aadama bi ci la nit ki di jubee kon ñooñu ñu ngi leen ay ñaanal yàlla yal na leen yàlla gindi teg leen ci siraatal mustaqim jullit ñi tamit li ñuy wax suñu bopp rek loolu lañ leen ay wax li ñuy dénk suñu bopp loolu lay leen ay dénk mooy ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy royikaay bi nga xamante ne du masa varier du soppeeku du changer du ñan baaxoon na ci siècle bale baaxul ci siècle bi jullit yi xam ne lañ am kenn amu ko loolu na dañ cee war a profitoo defaraale suñu àdduna defaraale suñu alaaxira joxanteeg loxo ndax wolof dafay wax naan bukki bu yabee waxambaane hmm. ca doxin wala jullit yi buñ joxantee loxo hmm. dinañ moom adduna gi hmm. loolu nag kenn ku nekk na nanga ko tàmbale sa bopp ki nga gën a jegeel tey na nga ko jox loxo ki nga xamante ne euh, yéen a war a jëflante na nga jëflante ak moom te rafetal ko jullit yëpp bu ñu defee noonu adduna bi ci sunu loxo lay mujj mm-hmm. insha allah eh, loolu yàlla mën na ko mm-hmm. yal nañu ko yàlla defal mm-hmm. eh, di leen di jaajëfal bu baax waa Ndiassane TV képp koo xamante ne yaa ngi fiy yëngatu li nga fiy yëngatu yëpp yal na ko yàlla def yiw ko yàlla def barke na ko yàlla def wér yal na ko yàlla def jàmm ñaal la ñaal waa dëkk wi ñaal waa Sénégal yëpp yàlla mën na ko yal nañu ko yàlla defal ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa borom bés nga xamantene lu ci nit def rek mom sallallahu alayhi wa sallam moo tax te lu nit def ngir yàlla rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nit def ngir yonent bi rek ngir yàlla tax nga def ko ndax du du ñaari jëm du lo xamantene ki kii mooy yonent bi ci sharia ki moy yalla ci sharia hmm. li yalla wax mom la yonent bi wax hmm. li yonent bi wax mom la yalla wax kon alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh mbok yi nga xamanteni ni ñun ñoo ñu doon sétan ci sunu sen bi ni di Ndiassane TV waxtan wa ngogu li lañ amulon ak yeen ci ay simili yu ma sha allah di gëreum ak sante ñi nga xamanteni ni ñoo nekkoon ci caméra bi wax deug yalla sen liggéey rafet na di gëreum tamit ki nga xamanteni mom mo nek li nga xamanteni mom moy diine ak deugtal ci nit ñi li nga xamanteni mom moy jangale ak sayyidina sallallahu alayhi wasallam di jangale ki nga xamanteni moy Cheikh Mouhamed Kunta borom jassan kon mbokki fi lañ yam ak yéen ba benen jotaay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله